حكم ابن عطاء الله خم جن خم خم حكمة إذا ما أدري خم خم حكمة كاي كاي باي لور بن فاي فاي فاي بن فاي آه، خم جن خم خم حكمة حكمة خم خم خم خم من يوتي فاسون waaye fànn bu nekk rek xikma mën na faa génn xam ne fànn bu nekk rek xam-xam xikma mën na faa génn xikma dana génn ci tafsirul quran xikma dana génn ci naxu xikma dana génn ci hadis xikma dana génn ci fiqhu xikma dana génn ci luga xikma dana génn fu nekk xikma daal yàlla nee na man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasira képp ku yàlla jox xikma jox naa la yiw yu rëy doofi jox nañ ko yiw yu rëy loolu la yàlla wax ci am kon xam-xam bi ci bi ci gën a am solo nag mooy xikma xikma nag soo ko toppee fa muy teeree mooy ci yàlla rek waaw xikma soo ko dàqee fa muy téere ci yàlla rek moo tax ma ne woon bàyyi ne woon na al xikmatu ibaratun an maarifati ajalli al ashyai wa alaha wala ajalla min allah xikma day firi xam li gën a rëy ci mbir yi li ci gën a baax li ci gën a rëy te bu ne dara gënul rëy yàlla kon nekkati xam yàlla mooy xikma moo tax man la soo dàqee xikma rek mu dem ca yàlla téere bii nag al xikam la ki ko defar mooy ibnu ataillah benn suufi yu ca égypte nekk yàlla ubbi xol bi muy wax ay baat yoo xam ne dafa mel ni or xam nga nitu yàlla suy dund yàlla ba xol bi leer ci yàlla suy wax day mel ni li muy wax ay ay alxuraan la yàlla di wàcce ci xol bi te waaye dafa branché wu ci yàlla ba yàlla effacé ci li xol bi xol bi leer muy sotti su waxee rek nga yaakaar ni lii ay alxuraan la wala xadis yàlla ñu yàlla mooy léegi nag ñoo ngi woon ci xikma ñaata alhaadiyat wal ishruun ñaar fukk ak benneelu hikma mu ne talabun minka waaw talabuka minhu ittihaamun lahu wa talabuka lahu gaybuhu minka an anhu wa talabuka li gayrihi li qillati xayaaika minhu wa talabuka min gayrihi li wujudi buudika anhu mu ne talabuka ngay sàkku dara minhu jëlee ko ci yàlla ittihaamun lahu yaa ngi koy tuumaal xam nga nag wax bu ko gaaw a critiquer te fekk xamoo lan lay wax bi di wax ndax léeg-léeg góor yàlla yi seen wax yi day passé dégg-dégg nii moo tax olof njaay di wax balaa ngaa toj gémmiñu sàmm xamal lan moo liis ba nga xam lan la sàmm bi wóliis waaw mooy xamal lan la wax ba pare ki dégg nga xam nga suñ ne ut dara ci yàlla yaa ngi tuumale yàlla kon xam nga kenn dootul lalati loxoom di wax yàlla may mu waaye nag ay maxaamal góor yàlla yegg nañ foo xam ne dañuy rus ñaan yàlla ndax soo ne ko may ma dafa mel yaa ngi koy fàttali lu mu fàtte woon mm. ya dafa mel ni yaa yaa ngi koy yëgal lu mu yëgul woon te yàlla amul lu mu yëgul mm. ah, may ma rek dafa mel ni yaa ko gën a xam sa yëgul sa situation moom yàlla mm. yaa ngi koy tuumal lu bëri moo tax yent yàlla ibrahim bañ ko sànnee ci safara bi safara maa ngi tàkk jibril daf ko ci yoon bi loo bëgg ma wax yàlla mu ne ko dara dara kafaani ilmuhu bi xaali soxlawul ma koy ñaan ndax xam na sama lépp xam na fi ma toll xam nga nit ki léeg-léeg jàpp ne yàlla yëgu ko yaa ngi dégg muy tàllal loxo mm-hmm. kon ndeke moo tax ma gars téere bi ku ko mën a firi bëri na bëri na daal am na ñoo xam ne am na lu ñu fay wax daal mm-hmm. waaw li waa ji waxoon diw a ngi firi alxuraan dëkk sànga mu ne de diw ma ma xam mu ne ko waaw mu ne neel am na lu mu fay def rek <laughs> waaye <laughs> talabuka minhu nga sàkku dara ci moom itihaamun lahu yaa ngi koy tuumal wa talabuka lahu ngay sàkku dara ngir moom rëy boobu daa fàddu minka ci yow ah minka fàddu bu jëlee koo ci yow anhu wëlis ko moom yàlla maanaam dangaa fàddu yàlla fàddu gi nag minka ci yow la jóge du ci moom de xam nga fàddu gi fàddu gi nga fàddu yàlla ba gisoo hmm. ci yow la ndax yàllaa ngi hmm. du yàlla mu ne man maa ngi fu ne kon soo ko tegul bët ci yow la yow yaa absenté waaye yàlla absenté wul hmm. nga wax bi de soo mënoon nag dañ ko def kii ñu tuuti mode yaa ngi dégg yaa ngi mu ne euh, talabuka lahu utal ko moom dara yàlla sàkkul ko dara xaybuhu firiwul lu dul ne xaybuhu faddu la faddu yàlla la min ka bu jëlee ko ci yow ndax am na faddu goo xam ne ci yàlla la jóge waaye am na faddu goo xam ne ci yow la jóge mooy absence boo xam ne ci yow la jóge ak absence boo xam ne ci yàlla la jóge moo tax gaa yi góor yàlla al xaybu xaybaani xaybun ribta anhu wa xaybun xaaba ank absence yi ñaar lañ boo xam ne yow yaa absenté ak boo xam ne yàlla moo moo dem bàyyi la maanaam looloo dem bàyyi la bu yàlla sax mooy alamul arwaax yi mbindeefu ruux yi fa yàlla dajale woon ruux yi balaa moo sàkk yaram yi mbindeef boobu xamatoo fan la ndax yàlla ne man maa dajale woon ruux yi daal di jël lii ne alastu bi rabbikum est ma seen borom ma waxee yëpp daal di lab ci kàddu hmm? lu du ruux yonent yàlla Muhammad mu jóg ne bale ahankay yeneen ruux yi di ci naan di wax bale hmm. alxuraan netteel na loolu hmm. léegi nag foofa xamatoo fan la xamatoo nan la woon ak naka la woon kon xaybu googu moo la fàdd xaybun xaaba ank loolu xaybu googu moo dem bàyyi la ndax xamatoo fan la waaye waaye nag am na absence boo xam ne yow la yàlla ne man maa ngi fu ne loolu ci ci ci ñi xamagul yàlla dëgg-dëgg waaye ñi xam yàlla ñoom duñu wax yàllaa ngi fu ne waaye yàllaa yi lu ne xam nga kon foofu da ngay wax fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul léegi nag su ñuy wax ci maqaama gu suufee gi yàllaa ngi fu ne mooy gu suufee kon comme que moo ngi fu ne soo ko daju rek yow yaa absenté waaye allahu tabaraka wa taala lam yadif anka wa innama alxaaibu anta al abdul miskin yow jaamu miskin bi yaa absenté waaye yàlla allahu xaadirun daima fa lamma araani al wajd annaka xaadiri shahidtuka mawjudan bi kulli makan waa ji ne fa lamma araani al wajd ba ma cofeel bi yëgal wonee ne annaka xaadiri yaa ngi fi shahidtuka mawjudan bi kulli makan su ma ges rek daj la yow yàlla kon soo ko dajul rek yaa mm. fi nekkul ah. waaye moom moo ngi inspiré wa talabuka li gayrihi sooy wut dara ñeel keneen ku dul yàlla mm. li xillati xayaay kamino ñàkk kersa la rek mm. ngay wut dara fekke du yàllaa tax loolu moom ñàkk kersa la parce wa talabuka min gayrihi sooy wut dara nag feneen fu dul ci yàlla mo ne loolu li ko waral mooy li wujuu di bu di di wujuu di bu ka anu ndax da ngaa hmm. sor yàlla ya, rek ya. hmm. moo tax ngay wut dara ya. hmm. kan ci kudul yàlla kon daanaka bul wut wut daal moom problème la ci ci li muy wax bul sàkku dara waaw moo tax bàyyi ñu nee ne sama sekkere laaj na ma ndax bëgg nga bàyyi ne ko du ma bëgg te su ma doon bëgg damay bëgg ñàkk bëgg parce que rek nga xaar bi gitu. muy wax escape bëgg nga mënatoo bëgguma te su ma doon bëgg damay bëgg ñàkk bëgg lu tax may bëgg wutul est ce que dégg nga wax bi de mun law kuntu uridu la aradtu an la urid law kuntu uridu la aradtu an la urid ngi déggal ma naan ndax kii xikma yi dañ lay yóbbu ba ngay xaw a tasaare sa kër ñoo ngi ñoo ngi dégg yaa ngi lay xadra bi si loolu waaw ndax léeg-léeg wax yi daf lay këf rek sànni la te doo ko yëg jaarbi bi yàlla mu ne alhikmatu saaniya wal ishruun mm-hmm. mu ne maa min nafasin tubdihi illa wa lahu qadarun fiika yumdihi maa mm-hmm. min nafasin amul nooyi koy nooyi mm-hmm. day wax ci zaahir nag moom léeg-léeg mu dugg si baat waaye day wax hikma yi de mu ne amul benn nooyi gooy nooyi tubdihi gooy feeñal illa wa lahu qadarun lu dul yàlla am na ndogal fiika ci yow ci nooyi googu nga nooyi ndogal goo xam ne yumdihi moom koy wéeru doomu aadama miskin la nooyi boo nooyi rek am na dogal bu yàlla dogal ci yow te moo ngi wéyal dogal bi te yow yëgoo moo tax ku man ragal yàlla mu ne laa tataraqab faraaga al axyaari fa inna dalika yaqta'uka an wujudi al muraqabati lahu fi ma huwa muqiimu muqiimuka fiihi mu ne walaa tataraqab bul fuuglu faraaga jeex al axyaari yeneen yi pour nga mën a concentré wu ci yàlla bul xaar pour leneen lu dul yàlla fàddu pour nga mën a concentré wu ci yàlla mm-hmm. foo toll rek concentré wul ci yàlla mm-hmm. soo bëggee xaar yeneen yu dul yàlla yi absenté boobaa yaa ngi gis ñaar mm-hmm. bii jeex beneen ñëw te benn rek a fi nekk parce que nga fa inna zalika loolu yàqta u ko def lay dog an wujudi muraqabati lahu pour nga am fuuglu direct ci yàlla ndax yaa ngi yaa ngi sentir leneen lu dul yàlla def lay dagg pour nga fuuglu yàlla من لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها من لا تستغرب بليم وقوع بليم وقوع الأكدار لا تستغرب وقوع الأكدار بليم تي ودك الأكدار نخ نخي مانا جفي جفي su dalee sa kaw loolu bul yéemu ndax àdduna gi ngay dund nii maa dum te fekk yaa ngi sax fii haasi daal ci këru àdduna saa boo gisee nëx-nëx saa boo gisee jafe-jafe saa boo gisee problème moo xam ci yàlla la jóge wala boog ci nit la jóge wala ci yow la jóge sax ndax nit ki léeg-léeg dana dana indil boppam problème mu ne yooyu yëpp maa dum te fii haasi fekk yaa ngi ci kër àdduna rek loo ci gis ci problème rek bu mu la yéem ndax lan mu ndax yaa ngi ci këru àdduna fa innaha ndax ad këru àdduna gi ma abrazat feeñalul illa ma huwa mustahiq wasfiha lu dul lu lu méngoog meloom àdduna daa yées moo tax lu yées rek la lay mën parce que dégg nga wax fekk yaa ngi ci këru àdduna loo gis ci jafe-jafe ak safaan ak nëx-nëx ak daar yi mu ne bu mu la yéem ndax àdduna joxu la lu dul lam yor joxu la lu dul la méngoog meloom est ce que dégg nga wax àdduna joxu la lu dul lu méngoog meloom mm. te moom meloom àdduna daa yéesu mm. est-ce que dégg nga mm. ak dunya daniya àdduna gu yées gi kon comme que daa yées yaa ngi dégg te wa shibhu shay'i munjazibun ilayhi wa naa bi dunyaana li amu loolu abu tayyib al mutanabbi mu ne wasi bu sëy dara su nuróoweeg dara mhm. mun jazibun ilayhi day xëccu jëm ci moom mhm. te wa wa wa ashbahuna bi dunyaana ki ñu gën ki ñu gën a nuróog suñu àdduna mhm. al li am mooy ñu yées ñi ñoo ñu gën a nuróog àdduna mu ne nit su nuróoweeg dara rek day dem day dagg jëm ca moom lu dagg rek moroom ma lay fekki mun nag àdduna ba nga xamee ne daa yées moo tax àdduna jëli ñu yées ñi favoriser leen ci kaw nitu yàlla ngay gis nitu yàlla loo xam ne amul lu mu njëkki am koo xam ne firiwul dara ci yàlla waaye la mu yor fu mu jeex xam nga lu waral loolu aussi bu chey i mun jësi bu li mu nuroog dara day dagg fekk ko adduna daa yées waa ji daa yées adduna fekk ko wa asbahuna bi dunyaana li aamo mu ne ki ñu gën a nuroog suñu adduna mooy ñu yées ñi ñu gën a nuroog suñu adduna comme que adduna daa yées mënu laa jox lu dul yées kon lu dal sa kaw ci jafe-jafe te fekk yaa ngi ci këru adduna xamal ne këru adduna amul lu dul lii moo tax mu jox la ko yaa ngi ci biir kër gi moo tax nitu yàlla yi bu ñu sonn lu ñu gis rek bettu leen parce que léegi wax xam nga tax yéen a ngi dégg di waaj waa jaa ngi wax de xam nga naar bi neewoon na ca Mauritanie boobu moo ngi liir téere bàyyi bu doy waar mooy sirrul ah, sirrul sirrul sirrul akbar mm-hmm. moom borom xam-xam la mais day dem ba ci biir waxu bàyyi mu ne mu réer dootul dootul xam lii bàyyi di wax waaye mu yëg ne nag bàyyi ngi wax moom mu wóor ko ne bàyyi ngi wax waaye moo déggul xam nga léeg mu wóor ne waa jaa ngi wax waaye yaa yeggul fa ngay déggee wax waaw léegi nag nit di wax mu wóor la ne kii waxul dara mm-hmm. Mm-hmm. waaye naat def ne wóor na ma ne bàyyi ngi wax maa yeggul nag fa may déggee wax waaye bàyyi nga wax waay waa ji tamit moo ngi wax mm-hmm. est-ce que dégg nga wax bi dafa xam ndax dina ngi dégg <clears throat> wa waajibu naatiha mooy li war ci meloom loolu rek la la jox mooy wa waajibu naatiha ak li war ci meloom ci lañ wax ay salafaat yaa ngi dégg de mooy waajibu naatiha mu ne maa tawaqafa matlabun anta taalibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta taalibuhu bi nafsik mu ne maa tawaqafa musul taxaw mukk matlabun càkkutéef anta taalibuhu goo xam ne yaa ko sàkku bi rabbika ci yàlla mosul taxaw yaa yëgoon rek hmm. ñaan bi su nangoo nga gis ko nangu na hmm. su nakkee ne ñaan nga ko tamit gisoo résultat yi nangu na yaa xamul fan la ko yàlla hmm. moo tax bàyyi nee na laa man bul tuum sa borom ci ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy ñaan yàlla ndax soo ñaanee sax nga ne ñaan naa ba sonn nangu luñ ma yàq nga ñaan yàlla nanguwul loolu ndax yàlla ba mu waxee wallahu yaalamu antum laa taalamu man yàlla maa xam xamu leen léeg-léeg nga bëgg dara fekk baaxul ci yow léeg-léeg nga bañ dara fekk looloo gën ci yow moo tax soo ñaanee yàlla rek jàppal ne moom nangul na la yaa xamul fan la ko nangu waaye bul tuumal yàlla te ñaan naa nangul ndax Baye Niass dafa man ñaan moom def ne allahumma ida aataytana faj alil ataa ataan wa ida manatana faj alil mana ataan yàlla ñoo ngi lay ñaan soo ñu mayee defal may gi muy may ñu gis ko mm-hmm. soo ñu teree nanguloo ñu ko même soo ñu nangulul ñaan bi jëlal ñàkk nangu gi nga def ko muy may nga won ñu ko waaw mm-hmm. jëlal ñàkk ñàkk nangu yàlla moom mbir mi dafa yomb ci moom mm-hmm. fa innamal amru baynal kaafiriin day wax amal rek mu am kon jëlal ñàkk nangu gi nga ta nga fabriqué ko mu nekkaat nangu nga jox ñu ko wa iza mana'tana faj'al liman a'ta mu ne nag amul càkkutéef goo sàkku ci yàlla تجهل أخويا خمر ولا تيسر من دموسا يوم بمطلب تأكل أنت طالبه بنفسك أبو خمر نيان كويس أكل سبكة يعني لبولة أوت سبكة بسوت لبولة أوت يا لسوت نيا خمر نمسوت أجمع سوت من علامات النجح في النهاية الرجوع إلى الله في البداية من علامات بكون تمان درجة an nuji réussir fi nihayati ca mujjantale mhm. maanaam yow li wani na yow réussir nga ci mujantali mbir wai mhm. an ruju nga dellu ilallahi ci da fil bidayaati ca njëlbeen ya mhm. waaw ku réussir ci nihayat rek il faut mu dellu ci ta. waaw ah, waa ji nee na xat naa la gaayata maa yarumul muntahi min rabbihi wala hujtihaadul mubtadi hmm. waa ji dee xat naa la jot na gaayata maa yarumul muntahi min rabbi lépp lu ku yegg yàlla ak yegg ci dayoo yi ca yàlla la muy jot mun a jot nag waaye ba léegi wala hu ñeel na ko ijtihaadul mubtadi lu kuy tàmbali dafa mel ni tey la dugg ci suluk hmm? ah man ashraqat bidayatuhu hmm. ashraqat nihayatuhu képp koo xam ne ashraqat jolli na bidaayatuhu njëlbinam ashraqat day jolli day leer nihaayatuhu mu jëltinam mastuudia fi gaybi sarair zahara fi shahadati zawahir mastuudia lépp loo xam ne dañ ko dénk fi gaybi ci gaybu asarair lépp loo xam ne dañ koo dénk ñoo ngi ko dénk ca gaybu sarair ca sarair ya ca baatin ya lépp loo xam ne dafa nëbbu zahara day feeñ fii shahadati zawahir ci seedeeg zahir waaw moom mooy li gars yi di wax innama ju ilal kalaam alal fuaadi dalila wax day tegtal li nekk ci xol arab dañuy wax maa maa fiika yazharu min fiika maa fiika li nekk ci sa biir te nëbb kenn xamu ko yazharu léeg-léeg day feeñ min fiika ci sa gémmeñ bàyyi nag nee na xarakaatu zawahir anawinu sarair loolu la wax fii mooy yëngu-yëngu zahir yi ñooy adresse su baatin toujours li nekk ci baati bi te làqu day faral di feeñ ci zaay est ce que dégg nga waaw wa shartaana bayna ah ma fi maana sallallahu alayhi wa sallam